résultat provisoire yi nak ñam la ji daanu na walu oui ñoo gagné département bu dugg avec 46,23% 46 46,23% département nga département département louga waaw département bu louga waaye yéew wi wi gagné 46,23% contre 45,20% c'est serré hein c'est serré oui mais yow kan kan moo la jox résultat yi ba nga ne gagné nañ département bi euh, résultat provisoire la makku ba béy parce que ñu ngi woon préfecture bu Louga ñoom ñu wàccee ñoom ñoo génnee résultat provisoire yi nga xam ne xam nañ ko ñoom ah. préfecture kon kay d' accord waaw léegi ci commune bi tamit yeewi moo fi gagné mm-hmm. moo ngi am cinquante deux virgule quatre vingt trois pour cent contre quarante trois virgule quatre vingt dix pour cent pour waa bokk yaakaar quarante quarante trois virgule quatre vingt dix pour cent. Mhm. pour waa Benno. pour waa daal ci commune bi Yewwi moo gagné ci département bi Yewwi moo gagné parce que am am mhm. am ay communes yoo xam ne Benno moo ko doon su ko doon gagné rek danay leer département lu ci mel ni Kër Momar Sarr ci Kër Momar Sarr Yewwi moo mhm. bu Léona Yewwi moo fa gagné. lu mel ni commune bi fii ñu ne Yewwi moo fi gañe lu mel ni Kelle Gueye commune Kelle Gueye Yewwi moo fi gañe kon dafa am na yoo xam ne daal su daa su su amee ku fa gañe rek da di sax moo fi gagné surprise bu surprise yow euh, Paul maa ngi dégg euh, Makumba bi ñu ngay njëkk a joxe résultat yi mu ne Louga bokk na ci première surprise hmm. de la soirée yow mi nga xamante ya yaa toogal foofu RFM ci diwaanu Louga yow hmm. Hmm. yow nan nga ko jàngatee déjà ak résultat yi nga jot am ah, Benno Bokk Yaakaar la la maire Moustapha Diop nekk tamit ministre quoi qu'on puisse dire am na ci base politique bu am am am solo ki nga xam ne moo fi nekkoon Mamour Diallo moo fi jëloon deuxième mhm. am na ci base base bu am solo euh, le directeur de xamen dëkk tamit am na ci base base bu am solo te soo xoolee cumul de voix yi nga xam ne Yewwi amoon na ko ci commune bi soo ko xoolee ci euh, euh, ci action locale yi ñu jógee dañ koo doublé mhm. dañ koo doublé dire que population yi ñoo génn ñoo exprimer wu librement li nga xam ne moo nekk loolu la ñu bëgg mu am parce que soo jëlee voix yi xam ne Mamour amoon na ko nga jël voix yi xam ne euh, Moustapha Diop amoon na ko daanaka rek daal dam mel ni voix yooyu la yeewi am ci biir commune bu Louga mu nekk nag surprise bu rëy parce que kenn mënu laa wax ne fan la yeewi jaar ba gañe ki nga xam ne moo di commune bu Louga Benno Bokk Yaakaar karawaan la xam naa bu mu rombee Louga Euh, coow li ne coow li ne pour ñëpp topp leen. joué joué na ci nag. mais mhm. nag euh, à part caravane Sonko bi da doon baax campagne mais euh, dañ leen doon gis mu ngi mel ni da doon 2012 bu wàtt di ne Macky romb naa ko Bourguiba ak ñetti nit ak loolu la doon mel nag. Mhm. mais temps temps yi da nga doon gis waa Benno di drainer ay ful surtout ci fin bi. mais loolu nag el génn wul ci urne kenn xamul daal xëy na division bu ci am la tamit seen biir parce que jubóowuñu mbiri la foofu ay leader yoo xam ne ñoo ngi bennoo boo ko yaakaar nekk Louga am ay ndombal tànk mhm. mais <laughs> ba léegi. waaw doy na waar ma kumba bu ñu comprendre fan la yeewi jaar benn bopp yaakaar euh, awa bay. kon euh, leer na ma kumba maanaam suñu correspondant bi sax. léegi léegi moom euh, benn moo ko gañe. Linguère waaw benn moo ko gañe ci lu ñu jot nee nañu mu di Aliou Ndiaye. Euh, léegi mu dese leen ban département. Euh, Kébémer Kébémer dinaa joxe résultat yi provisoire yi mais Kébémer wàllu moom gañ na ko boobu leer na nañ. mooy mooy Lamine Thiam. mooy Lamine Thiam wàllu. Mm-hmm. ñoom ñoo gañe Kébémer parce que Daaru Muxti ku gañe Daaru Muxti da ngay gañe Kébémer mais Daaru Muxti ba ci jan fana bureau bu mu voté moom centre bureau mu voté dañ ko faa gañe Daaru Muxti centre boo jël bureau lépp waa yeewi ñoo ko gañe. waaw waaw waaw waaw la ñu voté. waaw waaw ñoo gañe. mais mm-hmm. ban boo xam ne dafa dafa euh, changement lay la parce que Macoumba dafa am yoo xam ne. Kébémer da ko doon kaas lu jëm ci PUDC bi am na yoo xam ne amuñu forage yenn tali yi yegsiwul euh, Louga temps yi dañu commencé defar ay tali ci Patasène bi Promoville et cetera yooyu yëpp peut-être population yi ak seeraay moom la ñu génn tey ñu exprimer wu woon ne bëgg nañu changement Macoumba. Euh, mais léegi lu tax kon ñaari département ye moom voté Yewwi Wallu Linguère moom daanaka commune yëpp ñu ànd ak euh, Benno ak Aly ah, mais mais euh, Macoumba xam nga dañuy wax maire un nga am normal tànk mais da liggéey am bilan politique yooyu yëpp day mais à Linguère quoi qu'on puisse dire